asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi dellu si waat di nuyoo boo xam ne noo ngi koy tàmbalee ci Cheikh Mamadou Mountakha mii jëwriñu liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi di ko siyaare di ko ñaanal mu yàgg fi te wér jàllale nuyoo bi ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi mu seqal liggéey bi yëpp waaye di jagleel am nuyoo Sëriñ Basirum Sëriñ Abdou Xaadir bi nga xam ne dañ noo boole ci liggéey bi sëriñ Tuubaa bi rawatina lii ñuy bëgg a wax mu doon ci sunu jëwriñ te mooy setal gi ñu war a setalaat Tuubaa buñ màggalee ba noppi nu yóbbu ñu di ko jàllale sëriñ Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall ci kaw suuf te li naka jekk ndigal li bu ñu ma ko joxee dañuy wax naa njëkkee ci moom te jàll ci taalibe yëpp kon maa ngi nuyu bokki taalibe yëpp gannaaw ma jiitalee kilifa yooyu di jiital nag di ci teg nag bokki taalibe yi nga xam ne naka jekk liggéey bii may bëgg a wax noo koy ànd muy setal gi ñuy setalloo Touba bu ñuy bëgg a màggal Touba ak bu ñu màggalee ba noppi waxtu wu ne bi ñuy wootee itam li ñuy wax mooy lañ nu digaloon rek nan ca dellu mooy nan def li wolof di wax nan ko def ju ne ko wax moo koy njëkk nan waxtaan waaj dellu ci liggéey bi ni ñu ko daan defee te liggéey bi leenu tàmm ko mbir boo ko defee fukki at jëm fukki at benn jëm fukki at ak ñaar ndax mu mel ne 2008 lañ ko tàmbale woon kon dootu gan ci noonu dootu gan ci dëkk bi dootu gan ci taalibe yi waaye naka jekkit buñ ko masaan jub danañ def ay soññe yëgle ko waaye naka jekkit buñ ko masaan yëgle buñ ko àndee am ci ndam loolu moo waral yëglewaat bii te niñ koy waxee ndap boo ciy bëgg a def da nga koy raxas ba mu set nga def ci boo ca defee ba noppi nga raxasaat ko ba mu set kon bu ñuy bëgg a màggal Touba dañuy setal dëkk bi màggal bu nu màggalee ba noppi setalaat dëkk bi naka jekk nañ ko baaxoo defee nag dañoo gisoon ne diggante màggal ak gàmmo buñ ko fi setalee du set wecc ndax jaaykat yi duñ lafagun seen i bagaas jeexite màggal gi day des naka jekk nag bu gàmmu jotee jaaykat yi ñii dinañ jàll Tiwaawoon ñi dem ci geneen gàmmo ñi dellu ca marché ba dëkk bi yaatu buñ ma gàmmo ba noppi seetalaat naka jekk dañ ko daan bu ñu gàmmo ba noppi buñ nee bi suba la gàmmo bisu gàmmo bi dellu si ci la màggalu Cheikh Ibrahima Fall ñu daan wax ci suba sa ci la bis bu gàmmo bi dellu si ñoom ñu defar seen i bagage jekkal ko ndox nooy ànd liggéey bi bis ba cee topp nu tàmbal liggéey bi kon buñ gàmmoo gaaw ajjuma la doon màggalu Cheikh Ibrahima gaaw bu ñu dellu seen i bagage mooy bisu gàmmo ba dellu si te suba sëriñ dibéer ci leen war a tàmbali liggéey bi kon gaaw gaaw bi ñuy gàmmo bu dellusee ba nu xëy ca dibéer ja ca la ñuy fas yéene setalaat dëkk bi nam nañ ko daan defee kon ñuy woo ñëpp ñu ko daan seqal képp koo xam ne daa nga yëngu ci mbale mi na nga xam ne woo naa la muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw rawat na kilifa yi lañ ci jiital ndax lu mën a doon bu kilifa yi jiitoo ñi ci war a ànd ànd ci lépp yomb kon maa ngi tàmbalee ci soxna Astou Mbacké mu jiite soxna yi kon bàyyi mu jenn jigéen moo xam jigéen ñëw ci waañ ci ne ci waañ la wala jigéen ñu ne ci mbale mbedd may bale ci turu soxna Astou Mbacké woo ñoom ñëpp ak soxna maam Issa Sourga xam ne moom itam daa fédération ba taxawaay bu rafet la ñuy ci liggéey bi ak ñi ànd ak soxna Astou ak soxna yëpp da ci teg nag njiitu daayira yëpp chef de zone yëpp képp ko am da nga cee jàpp bu dee loolu maa ngi ciy jiital monsieur le maire ndax gasoil bi at yépp moo nu koy jox maa ngi cee teg itam transporteur ak chauffeur yi benn yi groupement benn yi nga xam ne oto yi ñoo nu koy jox ñu di ci génn mbalit mi waaye ci biir loolu itam képp ko am oto ba mën a génn mbalit ñu ngi lay tàllal loxo maa ngi ci am nu nuyoo boo xam ne dama koy jéggalu ndax ab Baay Faal du nangu ku ko tëddul ci wetu kili ay kilifaam waaye nag jàmbaar moom ne ko waaw góor day defar waaye du yàq dara suñu mbokkum taali mu tudd Sëriñ Mahamed Diop ñoo ngi koy sant de xam na lu tax ñu di ko sant yàlla xam na ko Sëriñ Tuubaa xam na ko Seex Ibra na ko kon nag maa ngi woon ñëpp bàyyiwuma kenn bàyyiwuma fenn bàyyiwuma ñenn dëkk yi ma daan woo maa ngi leen di ko daan defee it laa bëgg ñu defee ko nii mbaleem ñaareel waxtu woon dañ daan wax ne nañ ko tàmbalee si jumaa ji di génn ndax lu gën a jege jumaa ji mooy gën a taq ci màggal gi bu taq-taq yi jeexee ñu yeewi ko nu fas yéen yi def ko ñaareel fan ñetteel ba nu yeewi ko te mën naa nekk ndax gis nañ ne taqaay bi diise wut nam daan diise ci biir looy ñoo ngi gërëm waa UCG gis nañ ne seen yitte dolli ko baax ci liggéey bi gis nañ ne ba ci ba ci biñ ne suba la ci guddi gis naa ay oto UCG yu bale te boo ak léegi fu ma jaay dëkk maa ngi tas seen oto ma daan taqaay bi wàññiku na li ma daan wax nag mbirum Serigne Touba benn loxo da ko attanut ñëpp koy seq rek lañ ci bëgg ñu am ko ci kon mënuñu ko bàyyee UCG mënuñu ko bàyyee commune mënuñu ko bàyyee kenn ñëpp dañ koy bokk rek kon nag bu leen santee gërëm leen ci ñu ngi góorgóorlu teew nag ñu dañ doon gën a góorgóorlu maa ngi koy tàmbali seen coordinateur monsieur Ndaw ak ñi ko nekkal fii Touba jonn ñoom ak waa IDE ak ñëpp ñu bokkal seetu dëkk bi maa ngi leen sant leen gërëm leen soññ kon bàyyiwuma kenn bàyyiwuma fenn bàyyiwuma ñenn bis baa ngi noonu dibéer la buñ gàmmoo ba bis ba déwén si gaaw ba set dibéer nan ko daan defee gaaw ba danañ yendu kër nga ci daaru mën naan ku ku ñu jàppale ci matériel na ko andi foofa ñu jox ko liggéeykat yi safari benn yi ah, regroupement Pambey na naw nañ ñëw ñu wax noonu oto yi ñëwee ñu mën a teel monsieur le maire jox gasoil bi ñu xëy jox ko chef de zone yi dem ci biir liggéey bi buñ ci sóoboo rek ak pasif lépp danañu yomb maa ngi ñaan lu daje ci ak tawfeexi sëriñ bi ne ko sëriñ Mountakha da waxee tawfeexi sëriñ bi ku dajeeg moom sa lépp yomb sa lépp yëwén sa lépp barkeel kon yàlla na dajeeg tawfeexi sëriñ bi ci suñu mbir yëpp rawaat na li ñuy bëgg a suubu nu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilah